ñu ngi fii ci Medina Baye euh, dalal kenn ci njaboot yi Mawlana Cheikh euh, Assane Dème Tukulóoru Baye tey ñu ngi ànd ak kenn ci doom muy Seyda Ouma Dème Seyda gannaaw boo xamee nuyu nañ la euh, di la ziyaar bu baax a baax a baax Euh, ñu ngi lañ laan ngeen nuyu mbokk internet ñi nga xam ñu ngi seetaan. bi gannaaw bi nga xam ne nuyoo nga euh, ñu nekk ci li waajtaay gu mag a mag muy bés bu mag boo xam ne mu ngi xewee fii ci Medina Baye buntu kër Thierno euh, muy Katmiya laylatul Katmiya nga xam ne at bu jot ñu ngi koy taxawal fii. gannaaw nga xam ne Cerno làqu na si zaahir yéen ñi nga xam ne yéen doom yéen a ngi doxal loolu ba tey naka la ko Cerno doon teertoo. waaw ah, alhamdulilah laylatul katmiya bés boo xamante ne la bu jotaan bu weer wi taxawee rek muharram rek da gis Cerno dafay kontaan bu bugg a ji waaw ko waajal waajal bu métti nag waaw buñ ko daan defee ci tabaya ci làmb tukulóor bokk tukulóoram yooyu foofu la ko daan màggalee ak mu jot. su jotaan nag dafay kontaan moom Thierno ba nga xam ne amul kenn lu nekk dana ko rey waaw dépense yëpp moo ko daan génne moo ko daan joxe luñ ko laaj rek mu joxe ko daana joxe ba jox dafa daan jox tamit ci Laylatul Qadr eh, waa kër baay daf leen daan jox dépense maire yi dañuy toog foofu baay bu bu mag jox ko al xalifa al hajj Abdoulaye Niass. danaa boom ko tàmbalee boom dëddu diggante bi nga xam ne yéen toog ngeen moom gisatoo lañ ko lépp kañ ngeen tàmbaliwaat kat mu yeggee. waaw loolu yàlla def na alhamdulilah rabbil alamin ci dogalam yi man jàmbu xel bi maa ko njëkk a ku géntoon ci taalibe bi gis ko ci jalaal ko bu ci ko bàyyi koo bàyyi te mu ko dañoo amul mbéy mu ne ko dama gis sama doom ummaam suñu soo demee dama leen jox kooku nag xaal jàpp ko ñëw di ma seet ni ko damaa dem Dakar mu fekk ma kër Serigne Maam Niass HLM ko loolu kañ la na ma soreet ñaari semaine moo ci des ma ko loolu ndigal la ne dem def ko ma fekk xalifa alxaaji Abdoulaye boobu mu ngi dund ma ngi tay ba ma jël taxi dem ci moom ko fii ci dogal yàlla yi ci buntu kër gi 2000. gannaaw gannaaw loolu 2000 ba nga koy taxawalee euh, ñan ak ñan nga ko wax ak ñan ñoo la fekk si ba affaire bi tollu fi mu toll nii. waaw ba mu may ñu liggéey ma dem Serigne Mamadou Niass ñu kontaan ci lool taxawaay ak Serigne Aji Ibrahima Niass gannaaw gi nag. comme que jigéen moom a rijaalu xaw a xale misaa yi boo nit ñi su mu jigéen ñi mm-hmm. sama mag euh, suñu xalifa ak Mouhamadul Kabir ci déwén ma ciy sant yàlla rek waaw. alhamdulilah boobu ba gis nañ ci yokkute bu baax a baax a baax ren ji yéen jigéen nan ngeen taxawee ci katmiya ren gi. waaw ñun katmiya bu dañuy kontaan ndax xam nga yàlla dafa wax euh, dafa nettali yonent bi ci alquran euh, ne ko yonent yàlla Ibrahim dafa dénkoon njabootam ne ne wala tumuutuuna illaa wa antum muslimuun bu ngeen dee mukk bu fekk yéen nekku leen jullit. Hadj Abdallah bu koy firi dafay wax ne lu ëpp ci doomi baax yi ak sëñ yu baax yi dañuy topp ndigal yi baax yi ak maam yi loolu nag moom ñu ci xatmiya nga xam ne bu xatmiya jotee dafay nekk fierté bu mag ci usura dem ci usura Cheikh Ibrahim ci usura ñëpp su ma waxee usura dem nag sax waxuma doomi doomi dereet rek Thierno njabootam bi dafa yaatu ñëpp ci lañ bokk Cheikh Tidiane ñëpp ko bokk umma Tijaaniya yëpp ci lañ bokk. macha allah lan nga ñu mën a xamal si Thierno loo xam ne yow am na loo xam dund ak moom xam ko lan nga ñu mu waxtaanee si Thierno. alhamdulilah rabbil alamin dundoon naa dund ak moom moomu may moomu may sax allah yàlla def na boobu at yi néew na waaye alhamdulilah rabbil alamin dund naa fukki at ak juróom ak moom dégg nekkoon góor boo xam ne góor bu baax la jaani yàlla bu baax taalibu Cheikh Cheikh Ahmada Tidiane radiyallahu anhu dundam bi yëpp daf ko jox baay ak ak ak Cheikh koo xam ne la mu ngi juddoo ci Fuuta mu yox Sinthiou Danke mu ngi bokk ci xeet bi ñuy wax Halebe Halebe mooy xeet bi nga xam ne ñoom ñu tooroo danañ leen di ooyee mm. dañuy jàng am xam-xam am lépp ci askan ci wàll yaayam Euh, Farmata Kébé moo ko jur Farmata Kébé buyal moo ko jur buyal taf Omar Kébé moo ko jur tafsir Omar Kébé ñëpp xam nañ ko borom xam-xam bu mag la woon bëri na ñuy toog fii ci réew mi tafsir Omar Kébé jàngal na leen. Hmm. kooku tudd fii rek xam na ko rajo Sénégal sax daan nañ def euh, émission ñu waxtaan ci moom moo dëkkoon moo sàncoon dëkk bi ñoom doon mos. waaw ñoom dañoo am ziyaara yëpp ci wàllu baayam tamit. Hmm. Mouhamad Dem moo ko jur Mouhamad Dem Samba moo ko Aliou Deme na moo sëncoon daara xale bi moom xam-xam bu mag la woon sàmba mi juru baayam général Cheikh Omar Fouti daan ko daan wax dafa amoon dàkkantal ñu naan ko la palais tànk bi moo ba amul daal la dafa njooloon ba nga xam ne bu waraan ci fas tànk yi day yoon kooku moo ju bàyyi Thierno hmm. kon Thierno bokk na ci askan wi rëy gannaaw bu taree alxuraan jaayam jàngal ko ma jaay bis mu laxasu nag dem kaneel hmm. sëriñam bi ñuy wax Cerno Seydou Sooraaw dam hmm. demee nag kooku ko jàngal lu bëri waaw jàngal ko xam-xam boobu ñuy wax asrar sëriñ bi bëgg ko lool bëgg ci moom yàlla bi taa boo dem jotee lettre bi mu ne ah muy jooy rek mu ne man de li ma bëggoon aw ma ko ko sama sëriñ dem man ma bëggoon aw ma ko mu muy jooy rek nelaw dikkal ko mu nelaw rek gis sërif sëriñ Muxtaar sëriñi sëriñam mu ne ko sërif naa mu ne ko ñaanal moom mu ne ko loo bëgg mu ne ko xam yàlla rek na ne ko mu ne mu jël suuna di ko ko jox bu saf suukar ñetti yoon ceerno mu ne mu fàddu ko rek sëriñam taxaw ceerno Seydou Sooraaw mais ni ko xabaar na ko jugal fii li ngay ut nekkul fi dama fi jant bi soyee mu ne ko izhabi ilal kawlax wa ilal alxaaji ibrahima ñes laysa alal zalil ardi man alama billaahi minkum mu ne ko demal ci cheikh ibrahima ñes amul ko dina xam yàlla ci kaw suuf mu ne kër musuma dégg cheikh ibrahima musuma gis cheikh ibrahima sama sëriñ bi nekk ci barzaq moom mu boole boole ak cheikh ibrahima mu ne ma xëy rek bind sëriñ bi cheikh ibrahima leetar mu ne ma mu tontu ma jox ma askar tarbi dama taal anta waladu ruuxi taal anta waladu ruuxi wa min yaxmilu asraari wa anwaari mu ne ko ñëwal ndax sama doomi ruux nga da am sama mbóot da nga sama leer moom ñee jàpp ci bàyyi ñu toog fii wir tukki àggale askari tarbiyaam yëpp mu tàggatoo bàyyi dem Dakar kon demee Dakar dugg fa xalwa fekk bàyyi am na ku ñu wax Cheikh Omar Fouti Cheikh Omar Touré hmm. waaw mu xattamu bàyyi bu mag la hmm. moom xamoon a Thierno bàyyi na ko xel ci jumaa ji hmm. dem ci bàyyi na ko yow da ngaa bàyyi sa gan bi bàyyi na ko waaw mu ko kooku ku ñu bàyyi bàyyi na ko ah, mu waxal ko mu waxal hmm. waaye bàyyi comme que borom tubay bu sàngoo jot xamul fu ñu jotee Cerno booba ay téléphone amul dara amul Cerno tàggu na ko waaye nag moom lu mu bëgg rek yàlla daf ko yombal moom moo la yàlla def na Thierno dugg xalwa Dakar rek génn rek dégg na Baye ñëw na Dakar kër euh, suñ maam Alhaji Omar kan mhm. mu dem nuyu ko bàyyi na ko Assane yow da ngaa jeex mu ne ko damaa duggoon xalwa mu nettali ko lu ñu gis ci xalwa bi mu ne ko mu génn ñëpp bàyyi ko mu ne ko man maa la bàyyi woon waaye bàyyeetuma man damaa bëgg nga ñibbi ñu dem na nga toog foofu nekk dara kat képp kuy laak lekk kii kuy laak euh, pulaar waaw nga dimbale ma si lu bëri mu xooluma askan xooluma dëkk xooluma dara ma ñëw rek topp ndigali bàyyi mun na maa moom ñoo ànd ci oto ñëw moom Cheikh Ibrahim fii ci Madina dégg kon moom bàyyi samp na ko xilaafa ci biir mbokkam ci askanam ndax daf na ko damaa bëgg nga toog nekk dalalkat yi képp kuy làkk miim mhm. moo tax kër gi bu gàmmu jotee sa yaram bi dafay daw képp kuy làkk miim mi fii lay wàcc mhm. nu mu xat-xat yëpp ba ci mboolem kër yu aju ci kër gi ñoom ñëpp foofu rek la ñuy ndax li nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim moo ko ko faloon wax ko mu nekkoon nag góor goo xam ne moom Thierno Hassane yàlla am na lu mu ko may ci lu bari ay na mbokk ci kulóoram yooyu mu naan defal guddi Cheikh Tidiane gi ñoom duñu ñoon taalibe Baay duñu taalibe Baay waaye dañoo bëggoon Thierno ba nga xam ne ñu ne mooy seen Cheikh Omar Fouti yu xam naa bu dundaatoo nag ñoom lu yàgg sax dañ lay def taalibe Baay ndax dañ koo nangu doon bu baax mm-hmm. waaye Thierno dafa amoon bëggeel ci Baay ba nga xam ne képp koo xam ne bëggoo bàyyi rek Thierno war na la gannaaw daf lay dëmmooyu bàyyi rek la bëgg soo waxee mu ne Cheikh Ibrahima Niass moo am kóllëre boo koy sori mu lay xëcc nga koy dagg mu lay jokk nga koy noonu mu lay sopp mu ne kooku mooy Cheikh Ibrahima nga moo ko tuddee tim jawhar waaw moo tuddee Baye jawhar Thierno baati jawhar moom moo ko tuddee Cheikh Ibrahima yàlla may na ko loolu Baye jawhar la waaye nag yàlla may na Thierno daal ci barke Cheikh Ibrahim Thierno moom moo tuddee Baye jawhar ne jawxaar rek bàyyi lay wax man ta sori ci bàyyi mhm. gis nga ni li ko yàlla mayee ci Cheikh Tidiane lu ko ëpp noonu la ko yàlla mayee mbëggeel ci Cheikh Ibrahim loolu nag ma xaama la yàlla moo koy mayee mhm. su tuuti rek jooy ku a jooy la bëri woon yërmande la xol bi dafa fees woon dell dell dell pour nga gis ceer moom mu wax xool la jëfe la dundam bi yëpp dafa daan gëmmu rek foog fekk la mu ngi xaatir mhm. waaw mu ngi jooy saa yi julli faaxamaa anzalna saari guddi yi rek moom lay julli hmm? naag moom chariatul islamiya la ci fajar jotaan képp koo xam ne julliwut mën naa jël sax dóor la ak koo mën a doon dégg nga koo xam xam ne la daal wax dëgg neex yàlla ku yàlla mayoon la moom Thierno Assane lépp lu ko yàlla may nag ñu ko ko mayee ci buntu Cheikh Ibrahim bu muy ñëw fii yàng na xam na lépp ci sëriñam boobu waaye nag Cheikh Ibrahim mooy koo xam ne soo ñëwee ci moom dafay mel ni xamoo woon dara hmm. ndax moom xam-xamam bi moo ànd ak leer moo ànd ak barke bàyyi mooy may yàlla gi waaw te bàyyi xamoon na Thierno mooy kan ku ko joxoon gëdd la moom Cheikh Ibrahim ne woon na ko fi wàlliw yàlla yi am Cheikh Hassan Thierno Hassan yow foofu nga dalee waxoon na ko Thierno géntoon na ñuy xotti xolom bi tëral ko moom ba mu xëy am jalaar ci bés boobu yëpp tayal lekk sax mënu ko mu bind bàyyi leetar leetar bi ñu fi ba tey mhm. bàyyi tontu ko na ko wiraasa muhammadiya moo nekk ci yow te lii nga gis mu naa mu ne ko jàmb xeebu bii muy man Cheikh Ibrahim gisoo naa ko ci sama njëlbeen waaw bàyyi seddeel na ko loolu leetar baa ngi fii ci kër gi dégg nga bàyyi ku fonkoon Cerno la waaw Cerno it la ku suturaaloon Cheikh Ibrahim ndax sutura Cheikh Ibrahim ak ixtiraam ko passé wu mu ne lépp lu ma daan bindanteeg sëriñ bi bugguma soxna gis ko bugguma doom gis ko bugguma jege ñaale gis ko bugguma kenn gis ko damaa bugg su ma demee ba yëg dee man Cerno loolu na ma jiitu ci ci ci bàmmeel leen ko gas suuf bu kenn bugguma kenn gis lu ma daan jëflante baay xam ne loolu mooy ixtiraam sa sëriñ mhm. sa ixtiraam baay dégg mu ne génn na ci xalwa ñëw ci baay ne mi ngi ko fekk muy ndékki mu ne mu ne bàyyi na ko ñu asan ah, ni woon ndékkee mu ne mu ne mu ne ma lekk tuuti rek bàyyi ndax maa ngi koy taboor ndax mu suma sëriñ bi mu ne jugee na benn bés ñoo di nuyu bàyyi mu ne fekk bàyyi ngi leer ba mel ni seetu loolu kenn mosu koo gis mu na mu rek mun na mu xaatir mu ne bàyyi ngi mel ni ko chamsi wa duhaaha cerno dégg nga ku amoon bëggeel ci bàyyi dégg nga bàyyi timit bu ko bëgg la jaxasoo naa moom ci deret moom bàyyi dégg nga man jaam bu xeebu bii di wax ak yéen sama maam di jur sama yaay bàyyi ko jur dégg nga moo nekk mu may ko cerno dégg nga mu jël soxna Fàddem may ko sëriñ Maamun ba léegi goro ante mu ngi law jox ko ci bàyyi gi taa sëriñ taa mi ñi sa dencee doomi Kureysi si sa dem sama mag ñi denc doomi Maamun dencoon na sëriñ doomi sëriñ Daam Ahmed dégg nga ba léegi gore wante boobu mu ngi mu ngi law rek hmm. ci kii bi kon bàyyi jaxasoo naa moom ci zahir jaxasoo naa moom ci baatin te nga moo tax mu seddeel ko na sëriñ bi dafa am kóllëre hmm. borom kóllëre la jëmm kóllëre mooy Cheikh Ibrahima Niass mu Thierno waaw toujours daf naa seddeel loolu bàyyi euh, Thierno nag <clears throat> lépp lu ko lu mën a am daf koo teg tamit ci ndigal ndax sëriñ bi moo ko moo ko teg fii moo na ko neen dem nga nga toog mm-hmm. nekk dalalkat yi képp loolu du caaxaan mm-hmm. ndax yàlla dafa ñoo wax ci alquran wa daa'iyan bi iznihi mm-hmm. waaye mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ooteel ci ndigali yàlla suñ borom kon ndigal ak njëriñ ñoo lëkkaloo képp loo xam ne dafa am ndigal rek dañ ci gis njëriñ kenn kenn mënu ci dara kon yëfi Thierno Assane dafay jëm kanam waaye du dellu gannaaw ndax amu fi ndey moo fi bàyyi mbokkam yëpp a ngi fuuta waaye yàlla la àndee bàyyi dégg nga bàyyi jël ko téye ko def ci moom mbóot def ci moom wiraasa def ci moom lépp moo tax yëfam dafay dina continuer rek waaye taxaw mukk waaw taalibi Cheikh Ibrahima macha allah ñu ngi kontaan baax mm. euh, lan mooy sa kàddu gu mujj waa sama kàddu gu mujj mooy sant yàlla rek mm. di wax alhamdulilahi rabbil alamin ñaan yàlla yóbbu ci guddi katmiye bi yàlla nangul ñu lépp loo xamante ne eh, ñaan neen ko ci ak jéego neen ko ci jéego bu nekk rek hmm. yàlla def ko barke hmm. def ko hmm. eh, xéewal def ko yëkkatiku def ko dolleeku ci duniyaa wal aaxiratu ndax eh, kii ibnu baaba alawi moom woy na ko wa fi muharram gada xawsa rachid xalifatan al muhaymin al majid وامتيازك شيخنا بعرفة حكاه من حقاه عرب وبعد شهر وليار ارتخى إلى مقام العزيز المنتخى مقامه المكتوم عن كل وراء شيء النبي ما وراءه وراء ابن بابا علوي وينك وينك وينك كدمية وينك الشيخ تيان kon nag yàlla bu ñu ci kenn ëppale yéen ñii déplacé wu di ñëw di jël xam-xam na xam-xam bi dafay des ba pencam yàlla yéen tamit yàlla na leen yàlla yokk seen site bi nekk télévision àdduna bi yëpp xam ci barke Baay ci barke Cheikh Tidiane barke Yonent Yàlla sallallahu alayhi wa